itam euh, ñom woote ne ko. non lu mën a nekk la. lu mën a la xamal lu mm. tax lu mën a nekk la. Mm. Euh, parce que dañu nekk ci réewum bo xamante réewum démocratie la. Mm. donc buñu nekké ci réewum démocratie. aaj na ñu autour d'une table. seen fàllu toutes les guerres la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale sont fidèles euh, c'est-à-dire que si un tour d'une table de comment dirais fraternité la lañ jéxé donc man gisuma lo xamante mënul mënul tax Ousmane Sonko ak Macky Sall. ñu ñu retrouver autour d'une table de dialogue avec ces conventions là yoo xamante wala ces organisations yoo xamante ne. Hmm. pare nañu pour tëgg euh, lu mel non hmm. donc c'est à salier bu faites qu'ils vont passer à l'action vraiment sur saliable parce que euh, actuellement. nous mi fan la toll ñu toll ñu toog wax dialogue boo xamante ne moom la di def <laughs> parce que dialogue ah, dialogue dialogue politique parce que vous fekkee da ngay jàll non une Fall. mais attends mais attends mais attends soyons sérieux parce que on est dans un pays alors, ça dit que euh, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays boo xoolee sax tapale yooyu ñoo ñu andi fii fuñu tollu té mm, mm. te warul won demee ni mm. c'est-à-dire que man bu lu tax ma la dialogue bobu dialogue euh, bo xamante man joxuma ko crédibilité xawma ma lu tax euh, parce que mëno woté dialogue. mais ku nekk ak say point de vue ku nekk ak say point de vue. mëno woté euh, dialogue ku nekk ak sa gis-gis. par rapport ak réew mi des vieillards yo xamante ne. mais vieillard mais 1960 ñu ngi. mais am Khalifa Niass sérieux sérieux. Soyons sérieux. c'est pas c'est pas pour ngañ ŋàññi dialogue bi mais il y a des mais amna Khalifa Niass réew mi dafa yor parti politique am Fallou il y a des faits il y a des faits yo xamantene buñu mayé ñu ñu andi preuve lu tax ñu wax lolu ça dit que dialogue bo xamantene man joxuma ko crédibilité xamal lu ta hmm. parce que mëno japp mëno woté dialogue avec la jeunesse nga jël plus de 700 jeunes tëj leen ci kasso hmm. bi hmm. ba paré nga né da ngay woté dialogue d'apaisement parce que mom bañ na nee ne du dialogue politique dialogue d'apaisement ñu waxtané réew mi loolu la woote. Hmm. donc ñu waxtaanee réew mi dafay jaadu nga woo les les personnes yoo xamante ne. Hmm. ñoom ñoo censé euh, euh, dem ci dialogue yooyu mais doo wootee ay vieillards yoo xamante ne ñu ngi fi depuis l'indépendance. ay Abdoulaye Makhtar Diop ay ñoom xalifa Niass ay kilifa yoo xamante ne dañoo egg ba foofu xam lan moo leen animé ndax dañoo egg foofu ñu jox leen ceeb boo xamante ne ceeb bu neex la. mais ñu ne euh, mais réew mi toll na foo xam foo ñu waxtaanee ko c'est pas acceptable comme xali Ahmed Khalifa Niass taxaw ne Macky dangay da ngay dóore jëlal saba da ngay di dóore. Mm. non mais ça n'honore pas le pays qu'il faut du non noonu bu que même mm. da nga des contentieux avec Ousmane Sonko mm. mais franchement yow ci nekkaloo fa ci dialogue bi pour Ousmane yow ça cest à régler sa solde avec Ousmane Sonko yow askan yi nga nekkaloon ci dialogue bi donc il faut da nga war a wax loo à ne askan bi war na ko dégg ñu ne ñu nawloo la comme kilifa seen fàllu encore une fois kilifa du dem ci dialogue bu mel di waxal président de la république encore une fois ngay toog fa di layam layam yi j'emprunte les mots de Dame mm. c'est-à-dire que luñu gis keroog ci euh, dialogue bi euh, ay propos yo xamante à part quelques-uns ay ñu melni Cheikh Bamba Dièye ñoo xamante ne wax nañu fa lo xamante ne nopp mën na ko déggu de dégg mais ay kilifa yo xamante ne wax na fa ba wax ni mom colonel la colonel dans euh, quel pays Khalifa Sall aussi wax na fa lu ñu mën a Khalifa Sall aussi Khalifa Sall aussi wax na fa lu ñu mën a dégg voilà d'accord Khalifa Khalifa certes wax na fa lo xamante ne voilà lu am solo mais man kilifa yo xamantene il se dit que des responsables ay vieya yo xamantene ça saa fois saa su réew takatembe dañuy ne kilifa yoy nañu wax kilifa yoy dem ci dialogue bi ñu wax lo xamantene ne lañu la wax franchement buñ ko mënee tuddee ainsi deug dafa jaar ni ñom ñu jaar ne hmm. parce que mëno taxaw di président de la république da ngay doré ko xamantene yo kilifa nga c'est-à-dire que mam nga dañoo xaar ci yow nga apaiser la tension d'ailleurs yow Macky Sall woote na dialogue euh, mercredi réew mi takk jeudi yow ça ne alors non mais franchement. alors euh, euh, am na solo bax bax bax alors dañuy daal di jàll euh, sans plus tarder si nga xam ne moo di xëtu yëlekaay yi seen deuxième rubrique bu seen matinal d'information le talk de matinal daal di koy doore exactement ak le soleil mu daal di exactement le soleil nag tête à tête d'une heure mën ni kon si benn waxtu nag le ki nga xam ne moo di président Macky Sall ki nga xam ne moo di sëñ Moutara Bassirou Mbacké mu daal di xalif général des Mourides daal di jàkkaarloo waaye itam daal di waxtaan li nga xam ne moo di réew mi nag le président reçu par le xalif général des Mourides mën ni ko nag démb dara na ko fa nga xam ne itam mooy gisoon ko Touba mu daal audience euh, d'urgence la ko gars yi exactement mhm. alors euh, bobo di li nga xam nekk dalal alors euh, sûrement donc waxtaan nañ fa li nga xam les questions de l'heure manam jëm si li nga xam nekk mooy tollaa réew mi ak tension yi nga xam ni ñu noté de plus en plus fii si Sénégal exactement ma ni kon suñuy xool 22 avant de mu 30 minutes le président Macky Sall stéphane di yegg si fa nga xam ni itam mooy zone ko Touba gisante ne ki nga xam nekk moo di Bassirou Mbacké nekk xalif général des Mourides ñoom itam di

Euh, la parole du sage par rapport à qui n'a rien de moo di sëñ Mountakha sur Mbacké. voilà je profite de l'occasion pour nuyu euh, euh, euh guide religieux yi hein, aussi Khalif généraux yi. Du ko nuyuwaale Serigne Mountakha Mbacké. Mm. mu sell mm. yalla, Yalla yàlla yokk ay aw mm. donc l'île lañ doon xaar ci kilifa. effectivement donc euh, mi dafa le foo xamante ne Serigne Fallou. il faut que mag yi man waxuma ay yeneen mag yoo xamante dany, ñoom dañuy waxal mais ñu mel les guides religieux franchement parce que euh, Sénégal non le bindo, c'est-à-dire que nous, ñi pas tellement euh, les guides religieux les xalifes mm. généraux. Mm. donc bu wooyee Macky Sall c'est tout à fait normal. Euh, tout à fait normal dans la mesure que nous ñoo apaisé apaiser la tension. Mm dénk ñu ngi ñaan euh, le président de la république effectivement euh, mu euh, trop ci sëñ bi lu mu ko xaw ma la mm-hmm. mais jàppoon na jàpp naa ni que man ci lu ni que sëñ bi apaiser la tension. parce que kilifa la. Mm-hmm. gis nañu ko keroog mu wax. ci manifestation ya Touba ba mëne les Baye Fall nañu jël sen responsabilité mom jox na mm. pour ñu assainir la tension bo mm. xamanté mu ngi xew ci la ville la ville sainte de Touba Mm, mm. donc lu mel noonu la xaar ci moom mm. euh, mu le président de la république franchement mu conscientiser ko di danger qui guette ce pays c'est-à-dire que euh, li yam ci parce que euh, voilà force restera à la loi force restera à la loi gis nañu ko xalé yi taxul xalé yi yak nañu yaxet rew mi mais bu féké yow da ngay lakkatul ci lolu, franchement ça règle pas la situation la situation dafa soxla tey le président de la république mu wote parce que d'ailleurs dégg ci information tey il devait il doit faire euh, face à la presse. Hmm. moom le président de la république. donc ñu ngi xaar ci ah franchement oui franchement euh, ñu ngi xaar ci le président de la république mu communication boo xamante ne euh, waxuma communication ba mu en 2021 mille vingt et un boo xamante ne dëgg mu renouveler waat encore une communication boo xamante ne xale yi buñ ko déggee dañu ah donc xaaral ñu le lépp ci communication est saine. Euh, en 2021, je vous ai compris. mais est ce qu'il il avait bien décrypté ce message. voilà c'est ce que la question ce que que tout le monde se pose parce que je vous ai bien compris ba euh, voilà donc effectivement le président de la république ba comprend comprendre le message de la hmm, jeunesse. Hmm. C'est n'est pas parce que la jeunesse est dafa hmm, non non non il y a un énorme taux de chômage qui est là. Okay. Allez, ils ont euh, un lendemain incertain, c'est mm. C'est-à-dire que ils ne savent même pas leur devenir de demain. Euh, tout ça, il faut que le président de la République nous tenir en compte tenir de en tout compte. ça. Euh, parce que c'est des jeunes aussi, c'est des jeunes gamins qui ont Tout ça, il faut par, tenir tous ces paramètres-là. Mm. mëna il faut tenir en compte. voilà, l'attention. Voilà, euh, exactement sur l'info, exactement. directement les Mourad ñëw si xëtam gu njëkk ak li nga xam